saa yoo xamee ne am na lu toq ci sa xel rek ay xalaat yu toq sa xel xalaat yooyee nee na la nga ci njëkk war a bàyyi xel mooy ne yàlla kat mi nekk ak yow ànd ak yow te gën laa jege sa buumu xol wa aqrabu ilayhi min hablil warid yàlla moom yi nga xam ne xalaat bii kat yëg na ko te gis na ne yaa ngi ciy jëm xal yaa ngi ciy bëgg a xalaat nee na loolu it nga teel ko bàyyi xel bu dee lu baax la moom moom loolu alhamdulilah fa neex ma bu dee safaan nag nga gaaw tuub nga gaaw tuub jéggalu yàlla ci xalaat yooyu toq nee na foofu la fuglu yàlla tàmbalee mooy lii toq sa xel bu dara tàmbalee toq sa xel ci xalaat rek na nga bàyyi xel ne yàlla mi ngi gis xalaat yooyu mi ngi lay gis yow itam di xool naka ngay nara a doxale sa digganteeg xalaat yooyu yi nga xam ne xalaat yu ñaaw la bu dee yu rafet moom alhamdulilah waaye bu dee sawaan ba nee na la nga war a daal def rek mooy dal di tuub dellu ci yàlla xam ne innahu alimun bi daati sudur nee na loolu itam boo demee bay wax ba nar a yëkkate sa kàddu na nga xalaat ànd gi yàlla ànd ak yow bàyyi ko xel ci li ngay waaj a wax nee na bu dee wax ju baax nga doog koo wax kon bul jëkk-jëkk rek di wax di wéy waaye li ngay wax nee na nang ci xalaat yàlla bàyyi ko ci xel xam ne yàlla itam li ngay li nga wax gutal lépp moom mi ngi koy gis moom sirra wa axfa la wax lépp la xam moom dara ump ko léegi nag li ngay waaj a wax soo ko gis ne lii lu baax la nee na nga ko wax ndax aw yiw rek nga cay ame soo ko settantalee nag gis ne lii du wax ju yàlla gërëm nee danga na nga daldi tuub ci nar gi nga ko naroon a wax sëñ bi wax ne loolu daat koy jeexale wax jooju mu jeexale ko inna allaha basirun bil ibadi mooy xam ne yàlla mi ngi lay gis mi ngi gis ñépp di gis lépp te dara dara dara dara umb ko mu teg ca ne bërëb yépp suñu boroom a ko moom xam gi nga xam nag ne yàlla moo moom bërëb yépp bërëb yépp dafa am lu mu la war a jural njariñ lu la war a jural njariñ la mooy bërëb bi bu fekkee danga faa nekk nga xool bu dee bërëb bu baax bu lay sóob ci lu baax di la jëme ci lu baax na fofu mom man nga fa wuy di ne man nga fa tok bo beugé tok man nga fa nek bo fa beugé ne waye budé dee bo xamni du bu baax wala lu lu naqar yalla ma nga fa wala lu bon ma nga fa wala lu lay jëme ci ab safan ma nga fa nee fofu mom dal dil jub boko ko di nga jariñu te di nga muccu nee lolit ci ni ñi bàyyee xel suñu borom ci la bok moy bërëb bi tam na nga ci baye xel yalla xamne ne moo moom bërëb yépp ginnaaw moo moom bi nak bo fi nekké da ngay sét bu bërëb bi dé bërëb bo xam da lay jëmé ci lu baax néna man nga wéy di nekk fofé mom ndax fofu rek le talibé bi wara wër waye bu dé bërëb bo xam da lay yóbbu ci ab safaan wala lu naqari yalla néna na bo mom kon da nga dal di juk bul fa wuy mukk di tok ma di fa ne ñun loolu boo ko defee di nga mucc te di nga jariñu